intervenir ci ni mu gën a gaawee. ci li jëm ci service bi nag DG étude bi di xamle ne BRT bi dana yemb lool te itam sénégalais yi dinañ ci kontaan. te nga xam ne euh, téeméer boo jël ci ay passagers ci li ñu xayma li ñu prévoir. juróom-ñett fukk yi euh, seen soxla dinañ ko mën a matale mooy euh, fukki station yoo fukki station ak ñeent yooyu moom la ñuy tijji. jox ko exploitant BRT bi mu tàmbali jël passager yi ci fréquence boo xam ne juróom benn minute ngeen di xaar pour am bus entre Guédiawaye ak Petersen. loolee di wane ne lépp yemb na ngir sénégalais yi commencé di jëfandikoo BRT bi nga xam ne yàgg nañ ko xaar mu nekk nag BRT bu njëkk ci àddina bi bi nga xam ne 100 pour cent courant électrique lay jëfandikoo DG bi di ñaax askan wi ñu jëfandikoo ko ci anam yu mucc ayib.